temps d'autant plus que wax naa ko fépp te invité conseil constitutionnel ñu pensé wu ci argument bob, c'est extrêmement important nga nekk sama liste élève damay jël lu yomb mani élève bi dàq naa ko de génne na ko ci école bi man maître bi daal di koy baare ñu ñëw xol texte parce que maître amul droit dàq élève bi nous ko nous ñu dem ci directeur dem ci inspection ñu élève ba dindi bi ñu ko dindi ci liste bi jaarul ça veut dire que élève ba turam qui ci liste bi c'est ça le problème il faut aller plus loin il faut creuser plus loin c'est-à-dire dindi bu nga xam c'est illégal et arbitraire Moi je fa la jiwoo jeexul du fa c'est-à-dire je considère que Ousmane Sonko qui ci liste électorale yi ndax dañ illégalement et arbitrairement waaw un juge prononce wu ni dañ ko illégalement et arbitrairement mm-hmm. ba pare ni nañu remettre Ousmane Sonko fiche de parrainage Nous ñu dem administration nga xam ni dafa pouvoir exécutif mm-hmm. le ministre c'est toujours le pouvoir exécutif le mm-hmm. problème du film, mu que moi ce pouvoir exécutif là Il faut que le juge et parti Il faut que le pouvoir judiciaire soit encadré encadré limité ay champ d'action Il faut li nga xam soit dafa jëm ci euh, àq ak yelleefu askan bi mhm. kon tey bu ñu tegee nii dañ ko fiche de parrainage am ñu bañ ko jox fiche de parrainage à qui la faute la faute n'incombe pas à Ousmane Sonko ni à Pastef mhm. la faute incombe à au premier degré ñi ko du ba ni fiche de parrainage ñu faute euh, euh, erreur de début moy luñ ko ndax c'est illégal donc c'est une faute deuxième faute moy liñu ko jox fiche de parrainage muy deux fautes cumulées la faute au carré mais cela veut dire tout simplement que conseil constitutionnel bu ñu da accepter le le dossier de Ayib sans tambour ni trompette. Mm-hmm. mos naa ko wax fii. Mm-hmm. mos je wax ni génn CDC. annoncé gaa ñi ñu leen waaw man de déposé naa wala kii yooyu soxlawul la ngay def def ko. on est dans un pays où il y a ce que j'appelle des lobbies Ils ont xam ni dañuy tënk ba tënk sax président de la république nga ils ont des intérêts partisans particuliers borom cœur man na am juroomi jabar ci biir kër gi am xale bu def dara mu fenati moom borom kër gi yëg na ko mais borom kër noonu lay taxaw day fenati waaye bu fekkee ni am na xale bu ne ah moom de def na lii ba jabar yëpp yëgandoo ko il est obligé mu sanctionner. mu réagir effectivement. c' est extrêmement important lu may wax. Mhm. et je ne l'ai pas dit ici am na feneen fu ma ko wax pour attirer leur attention par rapport à ce qui se passe. tout à fait il faut que savoir raison garder nga xam noy defee xam noy doxé baña di sik ku ne nga sikk ka baaxul ndax nit day jël position do xam lutax mu jël position mm-hmm. té réew dafa jafé réew dafa am ay aléas yu bare réew dafa am ay lobby réew dafa am lu nga xam ne véritablement mën na échouer lo madame mi te fekk na moom intention bu baax la amoon mm-hmm. ndax intérêt en jeu yi moo bare mm-hmm. surtout bu fekkee réew mi ba nga xam ni la am na ñuy tëdd di nelaw ba di jot am ñuy kocc koccal nekk mason di dóor nga gis kay tëdd di nelaw ëpp doole fuuf maçon ba ba mën ko jënd am kër am lépp te moom mason bi nga xam ne walla mécanicien bi nga xam ni day ñàq guddi bëccëg suba ak ngoon munul am loolu maa ngi nuyu sama xarit Saar mi nga xam ni day dundee ñàq xam mooy Sahara Allemagne. Sénégal Sénégal de l'Allemagne. Hmm. ndax ñoom seen dund la ñuy seen seen ñàkk donc loolu rek laa bëgg a wax. Hmm. je veux dire tout simplement comme recevabilité bi am hmm. parce que mënoon nañu di irrecevable recevable. mënoon nañ ni tamit comme ni DG e def. ah ay ñun kat vérifier nañu fekk ñu fi sa tur. ak yoy mais ñoom dañu indépendant. dañ ko wax indépendant de l'exécutif et de législatif mhm. le pouvoir judiciaire joue le rôle d'arbitre donc c'est extrêmement important ñu ngi ñaan yàlla loolu nga xam ni def nañ ko mu indi jàmm nga xam ni ku nekk am nga apaisement d'esprit kat ndax jongante la jongante doo ni kee kat ma jonganteeg moom mhm. te moom mu nekk sénégalais comme yow te moom éthique ak morale ak déontologie ëppale woo ko ba ñu topp ko ndax éthique am boobu ak morale am boobu ak déontologie am boobu waaw boo nee ma jonganteeg moom ah lii ñuul ci yow la. alors monsieur le nga baal ma monsieur le ma les Sénégalais dañu xaw am.